melni sen nopp yi ak sen beut yi len rek lañuy gis muy tabaski bi ba taxna nak client yi yakamti lol am auto bo xamanteni di len di yobbu ngir ñu tukki ci jamm ci jamono joju nak ñu ngi waxtaan ñi ci telephone yi lepp rek ngir am li len gënal waye nak mu am lo xamanteni tamit daf ko jitu moy walu kaaraange bi ba taxna chauffeur yi di dox ci lolou bu baax baax waaw loolu moom sóoraale nañ ko dëgg yàlla parce que nit ki boo gisee muy jël oto dafa bëgg a teel a dem si jàmm àgg si jàmm bëgg nañ loolu quoi client yi moom bëgg nañ loolu dëgg yàlla waaw ba côté boobu moom bàyyi nañ ci xel bu baax a baax mooy maanaam côté révision oto yeeg waaw concessionnaire yeeg waaw yu ñu doon dawaane yi yëpp waaw garde boo maraîcher nag boo fi ñëwee dangay gis ne ñu ngi dëgg-dëgg ci feet waaye lenn rek mooy ñuul ci soow lii mooy prix yi ñoom nañ bu baax a baax. tey démb damaa ñëwoon euh, ñu nee ma fii ba man da ay 7000 lañu daa fay ay 6000 francs fu mu ñu koy fay ay 15000 15000 francs li ñu si yokk daa bari sax yii su ñëwee dañ koy gën a yokk yooyu gën tar si nit ñi maanaam mënoo mesurer dara. mesuron fayal ñetti nit soo ñëwee fu mu toll nii daanaka li nga war a jëfandikoo si yoon wi ngay dolli pour mën dem. paas bi daal mu ci ay 7000. waaw bu njëkk ba daal nga fay 4000 wala 5000 ba 3500 sax daal nga ko fay di dem Saalum. minibus 6000. 6000 la. 6000. Mhm. loolu mooy prix normal. non non nekkul prix normal bi bee tax la doon la waaw lu nu nan lañ ko mën a expliquer bu fekkee ne daa am chauffeur yokk seeni prix am na ñoo xamante ne ñoom defuñu lu nu mel. mun ma confirmer mun ma infirmer parce que man personnellement du ma yokk paas waaw donc euh, sama bopp laa xam. man moom 2000 francs péage ba aéroport waaw mooy mooy prix normal bi. ngir dal di attirer ñi nga xamante ne nag ñoo di clients yi mu mel ni am na chauffeur yoo xamante ne daa am na ñuy doxalee mu mel ni chauffeur minibus bi bi le ne otoom da ngay am climatisation waaye buñ ko saytoo ba noppi ñu gis ne leneen lañ fiy fekk. non amul kii day day wax rek loolu moom waxu pour yëpp client yi dara mais xam nañu amu ko quoi amu ko vraiment. yàgg nga si dugg te am client. non si dugu, yàgg naa si dugu. mais bu ko amee sax duñ ko nangoo taal. Ah. waaw des des fois nga gis yoo xam dañ ko am sax mais duñ ko nangoo taal. 10 000 jox leen ma 10 000 ma taal clim bi. jox leen ma instant leen de may na ah. di tukki ci jàmm di loo xamante ne nag moo soxal ñi nga client yi ba tax na ñiy woon ak chauffeur yi ci dal waaye tamit respecté bu baax code de la route. samedi fii la ñuy yenn pour sensibilisation en compagnie avec ANASER ak CETUD ñoom ñoo ñu accompagner ba samedi vraiment def nañ fi ay séance de secourisme def nañ yëpp fii au niveau de la gare. kilifa yi nag lenn rek moo leen soxal mooy client yi tukki ci jàmm ba noppi fekk seeni waa kër ci jàmm waaye loolee nag nu muy gën a neexee. mooy boo ci boolee xar mi nga xamante ne jamono ji ku ko amul daanaka amoo dax